subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim euh, mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan ci Shamsu bi ak mbokki internet yi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen baalu xaq te di leen baal xaq di ñaan yàlla ñu yàlla boole jéggal euh, di jiital si nuyoo bi Baye Serigne Thiénaba Baye Serigne Hassan sekk di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot gi euh, di nuyu imaamu ratib Serigne Cheikhou Amadou sekk waaye di nuyu chef de village Serigne Alassane Niana Seck di nuyu waa Thiénaba yëpp. Euh, jël sa tout cheikhou Ceene ba yëpp rek euh, tek ko ci loxo Serigne jibril sek mi nga xamantene wi mom ak tay ci euh, sët donte buñu ñu ci Serigne Ceene ba rek yakarna ni lamb na ñëpp. di nuyu tamit kilifay ci son excellence président de la république bu Sénégal monsieur Macky Sall ak ñi mbokal gouvernement bi yëpp. di nuyu wa Sénégal yëpp non la ñuy nuyoo bépp généraux ak kilifa diine rawati na nak ñi nek fi nga xamantene modi mbour Ah, ndax tey suñ jotaay bii ngeen di fas yéene seetaan ñu ngi koy amalee fii ci Mbour euh, ci euh, quartier santé su euh, Daaru ba ci kër Serigne Ousmane Seck mi nga xamante ne bi yaakaar naa ni ku tudd kër Serigne Ceneba tudd Mbour di nga ko tudd. lépp nag aju si wàllu préparatif 44e édition gàmmug Serigne Ousmane Seck war am fii ci Mbour. war a am samedi le 9 décembre 2023 yaakaar naa ni suñ diggante gàmm gi ay fan rek ñoom ñoo si des. Euh, Shamsu bi ni mu ko tàmm dafee rek yaakaar naa ni ci ñetti at yi ñu génn euh, gis ngeen que ni bu ñu dëgmalee gàmmu Serigne Ousmane dinañ leen amal ay reportage yoo xamante ni yu am solo lay doon ci njaboot gi moo xam ci mu muxaddam yi moo xam ci taalibe yi moo xam ci dëkkandoo yi moo xam ci sëriñ yi tey nag euh, ñu fas yéene leen indil kenn koo xamante ni yaakaar naa ni yàgg ngeen ko laajte waaye li ñuy wax naan lu jot rek yomb. góor ga nag nee woon na ma lu jot soob yàlla yomb kon nag mbir mi jot na tey soob na yàlla tey ñu fas yéene jàkkaarloog sunu wayjur euh, Baye Papa jóob mi ngeen miin ci keppaaru Baye Seydina Ousmane borom alquran miin ko euh, ci xam-xam miin ko aussi itam ci pédagogie si ay kàddoom waaye miin ko aussi itam euh, ci jottali bu rafet bi nga xamante ni miinoon ngeen ko ci digganteem ak sëriñ usmaan ba sëriñ Ousmane. dawlu tey yàlla yàlla dëkkal ko jànnatul na waaye xalifaam bi bi bàyyi sëriñ Mouhamadou Mourtada toog toogaayu bàyyi Ousmane yàlla yàlla gën ko dooleel Baye Pape Diop moomu ngeen miin nag euh, te ngeen yàgg koo laajte ndax euh, di bànneexu ci ay kàddoom waaye itam di bànneexu ci xam-xamam euh, yéen ñëpp ngeen xam ni bay Pape Diop mi njot nañ ni ku ko dekk micro laaj ko ci Serigne Ousmane yaakaar naa ni dinañu si mën a defal benn dars bu am solo bu ko defee rek moom la ñu fas yéene jébbal micro bi gannaaw bi ngeen bi ñu jógee Fass Kofé euh, ca ña nga xamante ni moo di imaam euh, Modou Modou Kane euh, imaam Modou Kane ak ki nga xamante ni bii moo di imaam Madiagne Diagne waaw suñu baay Madiagne Diagne ak suñu baay Modou kan ñoom lañ njëkkoon seeti bañ fa jógee dem nañ Parcelles Cambérène Euh, ci bàyyi taala Diop moom itam yaakaar naa ni daf na waxtaan bu am solo tey nag ñu fas yéene seq waxtaan euh, Baye Pape Diop fii ci Mbour lépp aju si wàllu waajtaayu 44e édition gàmmug Baye Seydina mbokk yi ku yokkul ku nekk yaa wàññi yaakaar naa ne ñun ñëpp bokk nañ xam ni gàmmu gi ni ma ko faral di waxee rek léegi dafa jël beneen dimension gàmmu gi dafa jël beneen dayoo gàmmu gi yaakaar naa ni léegi nit ñi bu ñu génnee ci gàmmu gi rek dañuy waajal ba ca ba ca topp looloo tax rek ñu bëgg bala ñuy yegg ci gàmm gi rek la nga xamante ni bii tey am nañu yéene ci gàmm gi di ko def du ci xaj ñu koy dawal lu jiitu gàmm gi ndax waxtaan yi yëpp yaakaar naa ni ci gàmm gi la bokk kon mbokk yi ngeen xam ni dugg nañ ci gàmm gi. bu ko defee rek dañu jël micro bi jébbal ko Baye Pape Diop waaye nag eh, niñ ko tàmm di waxee bu leen fàtte di abonné ci Shamsu TV ndax loolu moo ñu dooleel. waye di laal cloche de notification bi ngeen di gis non waye tamit di partage lien yi ñëpp di mëna sétane li nga xamanteni bi moy eh, mbekté waccayu wàccaayu gàmmug Serigne Ousmane sek mbokk yi kon ñu jël micro bi rek jébal ko suñu wayjur bay pap Diop. mbolo mi kon alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam. di leen nuyu nuyu wu tedd wa andak tambali ci bismillahir rahmanir rahim. di wax ni rabbi shrah li sadri wa yassir li ya amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam rawatina nag xalifa général Baye Xasan Seck yal na yàlla guddal aw fanam te dëgëral ay ndëggoom bi jaahi rasulillahi di ko ñaan itam mu ñaanal ñu yàlla waxtaan wii ñu nar a door yal na yàlla gàttanu ñu ceeg ndimbal defal ñu ci lu kawe njort bi jaahi rasulillahi ko defee fa tabaarakallaahu ñoo ngi waxtaanee ku baax. ku tedd ku yiw jullitub yàlla ku bëgg ñëpp ku gëmoon Cheikh Thiénaba waaye rawatina yonti yàlla Muhammad waaye ku ragaloon yàlla lool lool lool waaye ku bëggoon i tamit doomu aadama rawatina na bëgg lu baax yal na yàlla yokki leeram bi rasulillahi sëriñ Ousmane am na benn aaya ci alquran man nga cee seet ay jikkoom wa man taaba wa amana wa amala amalan salihan وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما loolu bokk na ci jikkoy sëriñ Ousmane tabaarakallaahu ku gëmoon yàlla la ku ko ragaloon la ku ragaloon tooñ la ku ragaloon lépp loo xamante ni suñu borom teet na ko maanaam di ko tere mu toppoon itamit ndigalam ci toppin wu rafet waaye lépp na mu ànd ak bëgg doom aadama yi ndax yonent yàlla Muhammad dafa wax ni man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yàqul xayran aw li yasmut su ko defee yonent bi nee na ku gëm yàlla gëm bis penc ma soo munta wax lu baax na nga noppi te it na nga wax lu baax moo gën ngay wax loo xamante ni gënut sëriñ Ousmane nag yàlla dimbali woon na ko ci làmmiñam lépp lu baax daal dina ko ca wax dina ca jëf lu mu mën a doon ndax seenu ca payug yàlla lépp loo xamante ni yàlla santoon na ko yonti yàlla Muhammad loola mu ca mu nga ca doon jéem a roy yonent bi rawatina nag góor gu mag di wéy ndax wax deug yàlla référence am yëpp mooy góor gu mag ku bëggoon yonent bi la nak waye nimu mu won way juram mara day tali nim ko ormalé won mara day tali nim ko joxe won cër mara day tali te loolu ci joxon cër bobu bép bayam bari na lu mu ko daan feñu guddé wak waxtu wu nek loolu nak ci am kersam yonent bi dafa wax ni al haya la yati illa bi khair gis nga julli deug deug lay tax jullitam mat moy day am kersa day am lu muy jomb am lu muy eres am lu muy rus sëriñ Ousmane nag yett yooyu yàlla dimbali woon na ko ci làmmiñam moo ko moom rawatina tànkam lu dul lu baax rek du ko tax a jóg leneen lu mu mën a doon ci loxoom mu di ko joxe da koy jëf ngir yàlla waaye du ko jëf mukk ngir àdduna su ko defee nag ku dal ku daloon la na ku dëdd woon àdduna la dëgmal boromam mu wóor ko ni mu ngi dund waaye dee ngi ci kanamam kon kooku xam na ni wax dëgg yàlla topp yàlla ak def lu baax rek moo am solo kon yal na ko yàlla jéggal yal na yàlla yërëm ko benn bis ci baaxam calaa laa ko nattoo xam ni kii ku baax la dafa am benn shérif bu fi ñëw di sàkku ndimbal mu ñëw fekk ko fii mu toog mu woo ma woo cekk bari na ñu ko fekke fa tabaarakallaahu shérif bi ñëw mu teral ko ci teraanga jooju mu ko tere rek shérif bi kontaan bëgga a génn ay kàggoom nag am lu mu jox sëriñ bi mu ni ma ana nga papa mu wuyu ko mu ni ma sa laaw neel shérif nee ko loolu muy kii na ko denc rek te tax taxul sax ñu xalaat a génne ko wala di ci def leneen xoola jooju orma shérif bi dafa mujjaat wëlbatikuwaat ni ko su fekkul woon ma am kilifa yow man nga ci lépp ci àdduna ak kon doomu aadama da ngay am looy roy di yonent bi waaye góor gu mag daa mat roy ci lépp ndax wax nañu ne ku gàttoon ab gis la ku gàttoon aw làmmeñ la waaye ku gàttoonu tànk la yett yooyu na mu ngi woon ci sëriñ Ousmane yal na yàlla defal ko njëkkal ak yërmande bi jaahi rasulillahi su ko defee ne fa tabaarakallaahu bu ñu nee bu ñu la nee kuy sa wajur nga ni sëriñ Ousmane doy na tiitar doy na sakk doy na lépp ndax ci mbaaxam ak ci tegginam ak ci ormaam ak ci ragal doom aadama ak ci bàyyi xel yàlla waaye rawatina nag barsàq sëriñ Ousmane jóge nañu fii di dem Ndar am benn taalibaam buñ ko tàggee mu ne nañ ma dimbali ñu bàyyi ko ba trois heures muy bàyyi Ibrahima Diop. ca njabeen ñu yàkkamti ko ba denc ko kere ba mu ñëwee dañu sallaaw day tooñ musu leen maa tooñ de waaye tey de tooñ ngeen ana kan moo am sañ-sañu jël gu sama taaliba denc ko ñu dem jiital ilimaan ji ñëw mu ne ko ban loxol malaayika nga ko teg dañu yegg ñaqtooy xib mu ne ko bu ëllëgatee yëfi jàmbur soo ca te def lu baax nanga nga maandu mu ne ko ba kere may faatu loo moomat yow sëriñ Ousmane duutuma ca jëf dara loolu orma la defee fa tabaarakallaahu sëriñ usmaan kenn du moom ci bëggam alquran ci bëggam doomu aadama bàyyi woon xelit yowmal xiyaam daana wax ni papa lu ngeen di séenu ci man lu dul ci kanam rek bu ngeen ko séenoo fii du ngeen ko gis soxna Xadi mi nga xamante ni yàlla boole woon na ko handicapé yàlla dafa jëloon fii ay tubaab ñu jóge bitim réew ni ko nit yàlla yi fi nekk dañoo bëgg nga seet ko ñu ci booleel plan bu mu bëgg ci këram ñu liggéeyal ko ko xelam di wëndeelu mu daj sëriñ Ousmane kere bi muy ñëw ñi mu àndal fa tabaarakallaahu takku nañu mu wooma ma ñëw dikki toog soxna Xadi ni ko sëriñ bi damaa am lu ma yéene ci yow niti niti diine yi bari nañ fi waaye sama xel wëndeelu na mu daj la moo tax ma ànd ak ñii ñii nag yàlla da leen a wërsëgal ñu bëgg nag yow nga wax plan bi nga bëgg ci sa kër ñu liggéeyal la ko te sa dara du ci dem mu ne ko sa laaw soxna Xadi sa yéene mat na waaye am na lu dàq lii ca kanam xolal gogu ngor xolal bobu bëgg yàlla xolal gogu bàyyi xel yàlla xamni nit ki mu ngi dund waye ëlëk dina dédé han ah kon nañu bàyyi xel gëna bàyyi xel Serigne Ousmane te xamni insha incha allahu ñàkkuñu ko ñu ngi koy soga am wallahi alazim ñàkkuñu ko ñu ngi koy soga am Serigne Ousmane wax na ni doomu adama bu fi joggé te yàlla baxal ko nee ñeen fukki guddi foko woyé mu wuyu la foo yàlla mu délo la ko te mom ñaanam yàlla da koy nangu direct sëriñ Ousmane ku baax la waaye sëñ Maar yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla dolli barke ci télé bi yal na yàlla def ci lu kawe njort bi jaahi rasulillahi waaye yàlla du xàññe wërsëg du doge war ma du fecci wëllëre du tas waaye sëriñ Ousmane ci mbaaxam jëf jii nga jëf ci gàmm gi nga di ko jëf ci taaliba yi nga di ko jëf ngir yëkkati ko yal na yàlla yëkkati la te wallaahi azim yàlla dina la yëkkati ndax nag من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره يالنا يالا دولي لن ديمبل سوكا دافي نان جابوتم جي دي سيرن مختار يالنا يالا غودال فنام واي سيرن ابراهيم سيك ميت يالنا يالا غودال فنام بجاه رسول الله واي سين ييني وي جور سي نيوم يالنا يالا ماتلي كوكو بجاه رسول الله لومو ييني وون سي نيوم سي باخ اك جانغ اك ليپ لومو ما دارون يالا يالا يالا ديفال لين كو سي سين يار سين تيغين سين ييك دوم ادمه ak bàyyi xel seen pappa kon yal na yàlla guddal seen fan waaye pakk buy fële yal na yàlla musal leen ci su ko defee nag xayrul kalaam maa qalla wa dalla su ko defee nag leneen loo ma ci laaj ma man la ko wax waaye lu li ma ëmb ci moom bari na lool yal na yàlla yokkileeram te taas ñu ci barkeem wa salaamun min allahi aleykum wa rahmatu. damaa bëggoon nga nga ñëwoon ñu ca digganteeg Serigne Ousmane fan la doore 73. yàlla dafa dogal sëriñ Ibrahima Seck faatu ma ñibbi si gànnaar yàlla dogal mu bokk ci ñi ma doon téyal may ja may tari waaw man 54 la ma sama baay joxe euh, Mauritanie sëñ Babacar si ci ñi ma ñaanal la bokk sëriñ man Mansour baayu xalifa bii ci ñi ma ñaanal la bokk ndax man 47 laa gane àdduna ma dem ma dem ma ma dem Daara 54 73 boobu nag sëriñ Ibrahima Seck nelaw ci la ma yàlla booleeg sëriñ Ousmane. ma dama daan taxaw dànk jullikaay balaa sëñ Ibrahima Seck ñëw may topp diggante sàpp si di tari alquran bàyyi sëriñ Fall bàyyi Maajoor Yàdd bàyyi sëriñ Ndongo ak yeneen mag ñi mel ni ñoom ak bàyyi xonn ñang kenn ku ci ne da nga daa yor mbaxana di ma dajaleel su ko defee nag sëriñ Ousmane ma xool ko ci mbaaxam ak orma ji mu jox sëriñ Ibrahima ak orma ji mu jox sëriñ Mamadou ñoom ñëpp ñu jël ko tafoo ko ma may laaj nag di leen laaj ni leen waaw ñëpp ñoo bokk sant Seck waaye seen rakk jii de damaa am lu ma gis ci moom ma di ko laaj sëñ Ibrahima ma ni ko waa lan moo tax sëñ Ousmane mii ngeen gën koo bëgg ci ba ci rakk yi mu ne ma sama baay ba mu mujjee dem muy góor gu mag da dafa ànd ak sëriñ Ousmane ñu ni ko góor gi de sëñ Ousmane tuuti na de mu ni gor du tuuti te ko ku ànd ak góor sa mbir day baax àddina ak àllaaxira foofee laa jógee yàlla boole maak ak sëriñ mu mottili ma àlluwa mottili ci man ab yar bari ñu ma bañ lool bari. ba jàngal na ma mottilil na ma alquran waaye jàngal na ma it xam-xam fa tabaarakallaahu yàlla boole ñu it ñu déggoo woon lool macha allah boobu moom 62 la ñëw Mbour kër baay Moodu Faali fi la nekkoon demoon na doon jàng ci Baye Aliou Diop doon na jàng ci Baye Gan Jeng doon na jàng ci Baye Alaaji Waseynu Fay ba bari na ñu fi jàng mu jàng ci ñoom fa tabaarakallaahu te booba fees na del ndax bi ñew fi fii ma sha allah mokal na alquran bari na lu ne ci mom lo xamanteni de nga am lamagn mu mënu ko tuddu mais beut man na ci teggu fa waye waaye wul gi ci mom yiw gi ci mom dal gi ci mom ak bëgg doom adama te rawati na bëgg xam-xam tanku neen la jaat yoge fi ko bay Modou fali keur bay Modou fali gi mu nekkon se ci de nga jàkkaarloog centre bi fa la da joge di dem kër Baye Alaaji Waseenu Fay tanku neen daawul sol dal di dem kër Baye Aliou Diop tànku neen di dem kër Baye Gan tànku neen orma jooju laagi gis ci moom ma xam ni kii nitu yàlla piir la te dëddu na àdduna ci lu mu doon xam nga doomu aadama da ngay nawe nit mooy ki dëddu àdduna dëgmal yàlla mu wóor ko ni mu ngi dund te day dee kooku moo mat a topp moo mat a bëgg te almaru ma aman ahab su ko defee ne mu jël ma tafoo ma ci boppam bari ñu ma tegub dof mu nital ma yàlla dimbali ma it ma amuk dal ci moom wàcce sama bopp mu bëggal ma boppam it lu ma sant ma def lu ma tere ma bay yàlla boole ñu nag guddi gi ma ko jëkk denga nga maam di ko jottali fii dama koy jottali ba sama set maanaam bisam bii gunge weer la ko jëkki de booba gàmmu la woon gàmmu la woon da daa firi fii alquran bu demee bay yàggal du Mamadou Baye Baye laaji Ousseynou kii Ousseynou Khoudia Khoudia Seck moom la fi daan yebal fii wala bu amee tudd mu yebal ko fi. mu am na bisit mu yabal fi euh, sëriñ Abdul mu mu mu góor gu mag mu kajoor yabal na ko fii ci am tudd ba am na doom ju mu ko tudde woon muy magu sëriñ Mortale mii yàlla dafa dogal dinga mu nelaw waaye sëriñ Abdou moomu la ko tudde yàlla daa dogal nag mu teel a faatu sëriñ Ousmane jaboot na waaye yàlla dafa jëfandikoo coobareem ci njabootam waaye mu muñ ko muñin wu rafet xam ni it yàlla dina ko ci fay te foofaa dàq fii fuuf ca pay ga ca xale yooya yal na yàlla yokk seeni leer bi jaahi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam lii ma boole ak moom ba nii mu nii ko yàlla jële ñu dugal ko bàmmeel looloo ñu teqale waaye musuñoo tàggu mukk musuñoo tàggu mukk man dama daan bokk ci daaira bi di sikkar boo ñu sikkaree ba pare ma jàng alquran la ma daa jàng ci alquran dama daa tàmbalee wala daal lii na wutilaahi bismi safaan ko moog wala asri ak yeneeni aaya ma dem nag ba ci biir benn bis nag da nga muy gàmm mu génn ci penc mi ma xool boobu Baye Umar Mbuub moo ko daa jottali am na gu sa amoon jiir fii kere ba mu faatoo moo ko yóbbu cana ba muy 86 86 la góor googu faatu moo ko yóbbu cana ba Mamadou la ko ni ko sa Moussa de muy papa da feber, lo yàkkamti yàkkamti na nga jaar de nga maam hôpital seet ko te la jaar ñëw dikki de nga wax ma ko maa moom keroog fa ba ñu jë ba bi bi jàllee muy 86. ko defee góor googu bii mu faatoo nag muy génn ci gàmm gi keroog laa ko tàmbalee jottali ba nii musuma tàggoo moom ci jottali niiw ma it jottali ma maa dem ba xam ni man mii kat war naa koo jottali ma nekk ci wetam di ko jottali yàlla dimbali ma nag ubbi ma ñu déggoo ci kàddu waaye it werante musta dox suñu diggante lu dul orma ak bëgg ko nag ba jeex tàkk waaye leen yéen musta am suñu diggante ba fi mu ne fees na dell sama xol fees na dell samay bët lu nit mën a amit sëriñ Ousmane rek a nekk sama kanam addina ak nag loolu nag yàllaa ko def waaye ci jikkoom la ci ragal yàllaam ci jaamu am fu mu toll bu lu mu noppi noppi mu ngi ciy turu yàlla bu jàngul alquran mu ngi ciy turu ba mu nekkee ci oto sax bu jàngul alquran mu ngi ciy turu yàlla moo tax dara lu dul yàlla rek musu ko fekk ci leen lu dul jàmm ak salaam musuf koo fekk ci leen mus sa dajeeg moroomum doomu soxnaam it ba kooko du ko wekk mbaa mu jox ko cër te it nag lu cër rëy rëy dina ko ko jox te fu ko fekk mu toog dina ko jaral summi ay dàllam ak mbaxanaam foon loxoom kon loolu wax dëgg yàlla ci orma la waaye boo bàyyee xel yàlla yàlla fay la su ko defee nag loolu moo ñu boole waaye yàlla na yàlla yokk la bijaahi rasulillahi eh, waaw moo war a jotaay bi hmm. euh, taalibe yeeg sopp yi nga xamante ni maanaam ñuy nettali dundu nit ku baax waaw dafa am luñ ciy jàngee pour ñu gën a roy waaw maanaam euh, boo ñu doon waxal a jàpp ci dundu sëñ Ousmane waaw ay jëfam yoo xamante ni ba léegi a des sa xol waaw fekkee mën nga ñu si wax euh, benn wala ñaar maanaam ci jëfam waaw loo ci gën a jàpp loo xamante ni def nga ko tey mu am na loo xam ni nag moom du ko tudd de <laughs> am na loo xam ni moom ah. du ko mën a tudd de ba taxoon na nag yàlla loolu yàlla defaloon na ko ci lijaaba lu mu ni allahuma rek yàlla fekk ko ci su demee nag rawatina nag nga am beug beug nga am beug beug nga ñëw fekk ko nga mu tollu ci xal su siggee ba franco lay jublu penku bu yeboo rek lo am rek yene ko te xamni sa mbir day bax wallahi la asim sëriñ Ousmane ben bis dama am nattu bu méttee métti sama soxna dafa tollu digeenti wallahi la asim maanaam mu nek jigen wara am dom yoruma dara xalaatuma fenn fu ma jëm suñu borom dogal mu am yitte ci maanaam Baye Njaga Njaay mu ngi dëkk fi boori kër te fii ci 30 mètres bi xam naa na ni am lu ko jot mu jóg ndeysaan daal di kër bi mi génn këram sax tàgguwul kenn dafa génn rek solo booti loxoom génn jël watiir dem ba mu demee dégg nga maam yàlla dogal ñu sus ci bi ci 30 mètres bi ma daal summi samay dal ràmbuti mu ni ma ana nga ma ni ko waaw mu ni ma salaaw li la jaaxal deñ na tey de ma ni ko ah sëñ bi ma tiit mu ni ma salaaw na sa xel dal damaa jëm fii ci sa kër Baye Ndiaga Ndiaye soo mënoon a woyof day ñu ànd nga gunge ma dina baax soo laatuma dàlli noona laa ko fa bàyyee ca mbedd ma ànd ak mu topp ci moom ñu dem ci Baye Ndiaga mu ñaanal ko yàlla keroog la ko yàlla yëkkati dundaat ni ñaar fukki at mu soog a faatu te ci accident la faatoo te loola ma ñu tàggatoo ma ñëw ci sama soxna si ba ñuy naan allahu akbar la ko yàlla may doom doom jooja daa dund waaye suñu boroom xéewal na ma ca loo xam ni maara day taali waaye daf ma mujj ni man na nga noppi de kilifa booy ànd ak moom te mu noppi del faral di bari looy noppi ndax am na loo xam ne làmmiñ mën na koo tudd waaye am na loo xam ne làmmiñ du ko tudd mukk sa Ousmane kenn la ñàkk naa fii mënumaa amub dërëm ma topp ci moom ñu jóge fii dem jàkkay saani bi mu demee ba romb 10 000 francs yu loy loy mani looy ma ni alhamdulilah sama banque de tey dañ na ma daal di yu daal di yootu ñaari junni yi di ko for ni ma yëgee noonu daal di ma ana nga papa ma ni ko waaw mu ni ma salaaw ñaa loolu nga for de daal di dellu fan ko fore woon nga jël xeer wu diis nga ni ko fa teg bu ñu demee kër ga dinaa la jox loo xam ni dootoo ñàkkati mukk bàyyi loo ci rek for ko xoolal boobu yeddaa nga te koo xam ni géesuwuma wallaahi asim wëlbatikuwul deful lenn la koy yëgal affaire booba nag moo mu jëkk a tiital ma xam ni kii nag nekkul nitu yàlla kese am na leneen lu ko yàlla déy te loolu cig sell ak maandu ak ragal yàlla bàyyi xel ëllëg yowmal xiyaam moo mën a maye loolu mais am na loo xam ni du ngóor a de am na loo xam ni du ngóor a sëriñ Ousmane bàyyi woon na xel mag ñi te wóoroon na ko ni yowmal xiyaam dina ñëw te dina dajeeg góor gu mag waaye buggul a dajeeg moom mooy am kersa te wallaahi mus sa soppi aw toogin ba àddina it mus cee xaabaabal ba tax dégg nga maam mu jëf leneen lu wuuteeg loo ko daawul fekk mu jëf ko lu may ragal yàlla guma mat sëkk te it nag lépp lu nekk ci loxoom yaa ko ci bàyyi te bu demee ba jëflanteeg yow soo demee rek soo génnee rek di nga xam ni kii lu muy jëf ngir yàllaa tax mu di ko jëf waaye jëfu ko ngir àdduna te dañu Ousmane kenn du moom waaw léegi fi ñuy fi ñuy mujjee rek waaw bëggoon di gàddu ci gàmm. maanaam ay gàmm. waaw jamono yi moom. waaw maanaam ni mu daan gàmm. maanaam. moom gàmm mu ngi ko déparé. gunge weer. Mm-hmm. da firi alquran. Mm-hmm. ci wàllu weeru koor. Mm-hmm. bu ñu demee ba nga xamante ni. waaw maanaam weer wi war naa xëy. ah ca la daa woote. ah. waaw laylatul qadri. ca la daa woote. su ko wa wa wa waa waa waa jobaas waa xabbaan ñoom ñëpp ñu takk seeni sareet buñ ñëwee bala ñoo ñëw ci kër gi il faut ñu def wër dëkk bi seen ñenn ñi takk si kar macha allah ni ñuy ànde ak wayan yi ñuy takkal seeni fas ñu xam ni rek doomu sëriñ Thiénaba am na bis foofu la bisam départ bu ñëwee dañ fiy fanaan yendu fi macha allah indaali lépp waaye moom la ca la ca la ca poosam la muy dugal loxoom ci poosam di ci jëf woon na lool ndax booba mag ñi dañ ko bëggoon te yàlla boole woon leen surtout Baye Mut Sii sa Mburoo surtout Baye Ousmane Tall Tefes surtout nag Baye Moodu Fall yi surtout nag Baye Talla Sey surtout nag Baye ba ba Baye Cheikhou surtout nag Baye Sira Mbuub Baye Ngañ Mbuub ñooñu ñoo daroon Serigne Ousmane fa tabaarakallaahu bëggoon ko lool maanaam xewroon ci moom lool waaye moom it mu jëloo woon leen tafoo leen. fa tabaarakallaahu sëriñ ba sekk nag bàyyi loo leen xel ci moom li leen sama rakk la kat waaye musuma rëkk kon su yàlla dogalee mu ñëw fi mottali àll wa suñu boroom dogal ba mu dëkk fi dénk naa leen ko nu ngeen ma jàppe rek ngeen jàppale ma ko ko moo ma ko gënal leneen lu mu mën a doon xam nga kilifa bu waxee ñëpp a koy topp ca waxam loolu moo gën a tollee tax mag ñëpp daw wuti ko waaye ba ñu dawee wuti ko it wuñ ko ci ñaan rëcc wuñ ko ci jëf bari na ñum fi tudd bari na ñu fi tudd bari na ñu fi ñaanal ñu am soxna bari na ñu fi ñaanal ñu liggéey wallaahi moo di njaay mii jiite sayal ci la bokk waa jii nekk police te këram jàkkaarloo nii te yaayam gaañu bu yàggut mm, euh, police bi maas ci ñi sëriñ waaw ci ñi bi ñaanal maas seen ci ñi sëriñ bi ñaanal ba mu nekk commis fi mu toll nii macha allah garaate na ci policier macha allah doomi baay mu sii sa mburoo retraité na léegi mu ngi dëkk fii moom it ci ñi Serigne Ousmane ñaanal ci la bokk dégg nga lii ma la bàyyi Cheikhou Fall amoon na doomam ji ñu wax Moussa Fall doon na tibbe ndey joor ak càmm te rajo dong la doon defar dem na ba li mu am ci ay ay ay oto kenn xamut nu mu toll fa tabaarakallaahu yàlla dimbali woon na ko yàlla mayoon na ko doom aadama yi waaye mus sa jóg nag dem ci nit di ko diis lennam mus ta am du ju góor du jigéen te it amul kenn ku ko musa mën a wax ni sëriñ Ousmane jóg na ngir ñëw ci yow di la diis boppam lu muy diis lu boppam rek yàlla la koy diis yonent bi way juram ak sellam ci digganteem ak yàlla ak màndu ci wàllu làmmiñ màndu ci wàllu lépp waaye di jóg ngir di diis ngir doomu aadama doomu aadama yi am yitte jaaxle ca tiit ca lool mu ñëw ci moom mu dékk ko ay loxo mu téye ko da nga am ñaanal ko yàlla loola yàlla teggi ko dama defal la ca lu kawe njort waaye sëriñ Ousmane yàlla na yàlla yokk leeram bi jaahi rasulillahi waaye amul benn cekkeen nag bu mus a ñëw ci këram gi te du danga koo naw da ko koo a fonk da nga koo gën a jox cër te loolee ci orma la ko amee waaye bàyyi xelam yi tamit ay magam moo ko ko may su ko defee na fa tabaarakallaahu leneen looy laajaat. su ko defee rek euh, maanaam boo ñu doon yu hmm. euh, bàyyi hmm. euh, allah rafet sëriñ Mor sëñ Ousmane moo rafet nu mu yare ay waa bi ci jiitu mooy daa joxoon orma yaa astubal la walbatiku jox orma xalifa Kayre walbatiku mbooleem rakkam yëpp mu jox leen orma rawatina nag sëriñ ñaaxa bàyyi Modou Fall Seck bàyyi Modou Fall Seck wax dëgg yàlla. moom def na sëriñ Ousmane kilifa waaye sëriñ Ousmane da ko joxoon orma yi mag ñi ba mu jeex tàkk ci lan da ko xoole woon jëmmi góor gu mag mu rusoon ko lool eres ko wallaahi asim loolu bokk na ci li te gën a tax way doomam yi yàlla dimbali leen sëriñ Mor daanaka asub yaa asubal rek la xam bi mu koy jël di ko yóbbu xombal tuuti la mook sëriñ kii Mamadou dégg nga ko ak soxna si ku jigéen ki rakku sëñ moor bi. fat sekk su ko defee yaa asubal la yàlla dimbali woon ci mbaax moom it daawul nelaw guddi ci jaamu yàlla wallaahi al te neexul woon xam ci moom wallaahi al asim tey mu nee wax bari woon jëf lool nekkoon ab jullit te li ëpp ci waxam rek góor gu mag góor gu mag soxna si benn bis la musa am lu ko naqari waye kérok bi yàlla dimbalee serigne Ousmane mu mag kérok la naqaram wowu deñ moy bi yàlla jëlé si si Ahmed bashir màggu sëriñ Ousmane mu yaakaaroo kon lool mu euh, say euh, góor gu mag ni yaa astu balla soxna astu néew la ci man taxut a ñàkk su yoboo nga muñ te xam ne àddinaa ngi ci kanam te lu dàq Bachir a ngi ñëw loola mooy sëriñ Ousmane gis nga mag mu mu mu yàgg ak yàlla buy wax du waxee ci sago waaye bu ko yàllay fay du ko fay du ko fay ci gii de da koy fay ba mu ëpp looloo waral sëriñ Ousmane su ko defee nag sëriñ Ousmane sëriñ Mor diirub li ko fi yàlla indi mu téye gàmm gi téye na ko te téyin wu rafet waaye yokk na ko nu mu ko yokkee mooy rakkam yi ginnaawala ci kenn te orma ju war si diggantee ak ñoom jox na leen ko waaye ñoom it delloo ñu bàttu bi ci ndaali xam nga mag kenn moomu ko kudul yàlla te loo defe ni bëtam nekku ca mbaa xelam gàtt ngam xel bu dee yar bu dee teggin bu dee orma bu dee lu mu doon nangul nañ ko ko te xam nañu ni suñ ko nangulee bu ëllëgee ñoom it loola day dellu siwaat ci ñoom dañ leen di nangul te ku nangul mag rek faawu ñu nangul la su ko defee nag fa tabaarakallaahu moom daa yokku gàmm gi waaye wàññiw ko taaliba yi kenn ku ci ne fu la sëriñ sa bàyyi tegoon bàyyam tegoon da ko yokk waaye wàññiw ko su ko defee yëggeeg safoogeeg faale gi da koo gën a yokk xeebul kenn ah, nawa diwul kenn te ku mu mën a doon rek mën nga ko yandal àll te dina waxta wàccee boppam waxtaane yow dalal sam dugal la ci boppam ubbil la boppam ba nga ñime ko loolu nag yombul ci kilifa yal na yàlla guddal fanam soxna Suballa yal na yàlla guddal fanam te yàlla dolli ko wér mooy taawu kër gi soxna Faat Seck kay woy juram mook soxna Faat Seck waaye aji Faat Kan Sarr mu nga ca ndaam yàlla da ko boole woon ak sëriñ Ousmane mu neexoon a àndal lool bëgg sëriñ Ousmane ci orma bëgg sëriñ usmaan ci kersa bëgg ci sëriñ Ousmane ci lépp te sëriñ Ousmane jaraloon ko lu ne waaye sëriñ Ousmane it neex a jaral lu ne neex a àndal ci lépp te lu baax lu mu xam rek yokku na ko ci soxna si ci nekkam ak moom lu muy gàtt gàtt yokku na ci saayir yokku na ci baatin su ko defee nag Baye Assane Lo mi nga xam ni moo nekkoon borom këram lépp léppam da doon Cheikh Thiénaba rawatina Serigne Ousmane su ko defee ne fa tabaarakallaahu aji faat kan moomu moom itam ñu ngi koy ñaanal yàlla yal yàlla dolli ko wér. may ko mujj gu rafet ak njabootam nga nekk bitim réew it yal na yalla teg leen loxo te lu ñuy yëngu lu ne yal na yàlla def te barke su ko defee itamit fa tabaarakallaahu waaw soxna euh, soxna soxnaa subal taaw la de ci jigéen waaye góor mënu ko ndax moom itam orma ju mu war a jox rakkam jox na leen ko yéeg gu mu war a jox rakkam yii jox na leen ko safoo gu mu war a jox rakkam yii jox na leen ko yal na yàlla dolli wéram bi jaahi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam mag la mu mag lool te mat ko sëkk waaye rakkam yi mat nañu rek te rëkkuñu ko yal na yàlla dolli ndimbal bu baax waaye maar jërëjëf. waaye sëriñ Maxtaar mii nga xamante ni diirum ñun ak baayam musuñoo manqué benn yoon. mosuñoo manquil benn yoon mosuñoo cofit benn yoon waaye yal na yàlla guddal aw fanam génn golo gudd na waaye lu ci la borom yëg Ibrahima mii de moom it macha allah ayadahu llahu wa nasrahu yal na yàlla téye ko ci loxoom te dolli ko mbég te guddal aw fanam waaye lu wéy juróom yaakaar ci moom yal yàlla mottil ko ko bi jaahi rasulillahi waaye yéene yi wéy juróom wu jigéen ci moom yàlla bu ci dara tas bi jaahi rasulillahi moom nag topp na ay magam waaye fakkastalu ci kenn surtout nag kii dañoo bokk baay waaye ñoo bokk ndey ak baay ndax lu yendu ci kee fanaan ci kii lu fanaan ci kii fan yendu ca kee li ko waral nag mooy orma le respect est am na loo xam ne su ko wàññi woon ci moom dina ko yëg tey nag lu mu ko bëgg-bëgg dina am lu des waaye yal na yàlla guddal sa fan su ko defee nag looloo waral ñun ñii di mag ñu am saw sawqa ci ñoom ndax ni leen yàlla boole dañoo boole seen bopp ànd nekk benn te loolu mooy mooy mooy dëgg mooy fulla mooy fayda mooy sëriñ moo moo mooy tax ëllëg nga mën a nekk muqaddamu Cheikh na Ahmada Tidiane yi ñu ngi nuyu nag soxna Faat sek di nuyu soxna Astamakan di nuyu soxna soxna Nogay sek di nuyu nag mboolem ñi fi nekk ñëpp soxna soxna Mbenoy di ñu ngi nuyu soxna matital soxna Mati mii yàlla dafa dogal ñu tudde ko yaayi sëriñ Mor فتبارك الله تلي ابتي يارم موكو يار عثمان تال جوركو واخ دغ يالا ناك بو وولول بيدين با دوكو وكوتو ني ييكاتي كو جوخ كو سيرن مور وايي ما شاء الله رافتال نا سي بير رافتال نا سي بيتي يالا بومو غيس بوبام سي ليمي ديف لومو امك سيرن مور يالنا سي يالا ديف باركي بجاه رسول الله وايي سين وي جور يي جيجن ناك غاتيا غالاما واخ دغ يالا سخنا نجوبا باي مباي سيك كو يورون ndem wolul bejjen ba duko wokuto suñu amut woon yaakaar ci Serigne Ousmane du ñu jël soxna Ndioba jox ko ko waaye yaakaar dañu amoon ca Baye mbay ak na mu jëloo woon baay mbay def ko Cheikh ba looloo waral ñu yëkkati soxna Ndioba jox ko Serigne Ousmane. saa lal seen basang fii ci ëtt bi Serigne Ousmane dem na soo ñëwee fekkoo fi Serigne Ousmane niñ lay accueillir day mel ni da nga fekk Serigne Ousmane moo tax lu ko yàlla may ak Serigne Ousmane mu néew mu bari yàlla na ci yàlla def barke. al ajlatu nag min acheytaan yi yàkkamti day bokk ci mbirum seytaane waaye incha allahu sëriñ Ousmane lu xolam sedd ba mu ni la allahuma wala muñal bu ëllëgee dina neex ne la wóor ni loola day ñëw lu mu yeex yeex day ñëw lu mu gaaw gaaw day ñëw te yeex gi nag mu ñëw nga jëriñoo ko moo ëpp lépp. kon njaboot gu mu am moom yal na yàlla def ci barke yal na yàlla defal ko ci lu kawe njort te ñi jigéen ñi kenn ku ci nekk la nga bëgg yaa ko xam yal na yàlla defal la ko bi jaahi rasulillahi su ko defee soxna Mati muy wéy wayjuru Serigne Mor Talla Seck macha allah wax dëgg yàlla am na njaboot gu góor boo xamante ni yàlla da leen jël ci coobareem yàlla nag lu mu moom bu ko neexee mu jël ko bu dee ci góor Serigne Mor a ci dund وعن ينين يجيجين وعي فتبارك الله لولا نيخ يالا مدفكو وعي سخنا متي ما شاء الله يالا بولي ونكو سرين عثمان تينك ياتنا ياتلنا بخدك يالا ياتنا ياتلنا تينك كبقون دوم آدم الله تين فمو توك فنا ياكو ياكو في يندل كون لمو امك موم يالنا يالا دف تي بركه بجاه رسول الله سرين مامدو يايم ياغو في وايي واخ دغ يالا موميت امنا لوم في ليغي با فيغ ني سرين مامدو سرين مامدو لي ني مانا واخ تي mooy làmmiñam gàtt na munta wax wax ju bari waaye jëfam bari na lool waaye ak noppee moo mu ëpp te yonent bi def ni man samata najaa ku noppi mucc moom daal njaboot gi yal na yàlla teg leen loxo yal na ñu sekki te tekki seen li seen yé wajur yéene woon ci ñoom yal na yàlla defal ko ci lu kawe njort bi jaahi rasulillahi te yàlla bu ñu am nag menn ndok bi jaahi rasulillahi su ko defee nag ab dof bu yàlla boo xamante ni yàlla da ca dafa rof ci moom ak ndof te mu waroon a mën a topp àll bi di dem sa waajur yàlla baaxal ko ba mu indi ko ba boole ko ci nit ñi moo tax duñ ko mën a fàtte ci ñaan benn yoon waaye ñoom ñi xeebu ñu benn yoon cofuñu ñu benn yoon lu ñu mën a dof dofit bàyyi nañu xel ci seen waajur kon yal yàlla guddal seen fan waaye yal na yàlla yokk la ba nga yëg ko njaboot goo am mu néew mu bari yal na ci yàlla def barke waaye yàlla bu wutee sa daray njaboot loo yëngu lu ne yal na ca ndimbalul yàlla jiitu bi jaahi rasuula ànd ak sàmmute te li dàq cib jullit sëñ Ousmane ëppoon ci ñaanam yal na yàlla may la mujj gu rafet bi jaahi rasuulillahi su ko defee nag xayrul kalaam maa qalla wa dalla su ko defee dongo yi fii jàngit yàl na yàlla hubbi ndax seeni wayjur dañoo am yaakaar ci pàkk bi am yaakaar ci sëriñ Ousmane kon suñu yëkkatee seeni doom joxe fi yal na yàlla hubbi seeni xel yal na yàlla barkeel seenum njàng yal na ñu taawu seeni wayjur bala ñoo sonn bi jaahi rasulullah sallallahu taala alayhi wa waa gàmm gi moom maa ngi woo maa ngi woon ñëpp maa ngi woon ñëpp te ñëpp nag kenn ku ci nekk am na lu la sëriñ Ousmane lebal ba tax na bisam bii war ngaa mën a jóg mu jaral la lu ne ngir nga fay ko su ko defee ne ñu xam ne ak yaafus yóbbu ko waaye ak njàmbaar itam bàyyiwuñ fi su ko defee ne ku mu mën a doon soo ñëwee ci bés bi nga soo delloo nga yëg ci yàkkute loo doon def na ko yokk ñëw góodoon ni ñëw na nga ko yokk loo doon indaale na nga ko yokk yar beeg teggin bi kenn ku ci ne na nga xam ne dangaa jóge sa kër di ñëw sa kër su ko defee ne lu fi waaye ñëw rek def ko fi yal na yàlla fulal la ko bi jaahi rasulillahi waaye kenn ku ci nekk daal ne la bis bi jaral lu ne te xam ni yàlla ñimewul bor daa am pay te kenn du fi ñëw nag di ko rëccu ku fi ñëw ku ne di nga yokk te dina la wóor ni la bis bi yàlla sëñ Ousmane da koo tànn ngir jëmmi yonte yàlla Muhammad ngir jëmmi Cheikh na Ahmada Tijani waaye ngir jëmmi way juram yal na yàlla yokk ay leeram te saa suñ ci barkeem bi jaahi rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam wa salaamun min allah aleykum wa rahmatu eh, mbokk yi bu ko defee rek eh, mu mel ni kooku moo nekkoon sunu way jur eh, Baye Pape Diop comme niñ leen ko waxoon ci njëlbeen ki ñu miin ko ci keppaaru Baye Seydina Ousmane Euh, miin ko mu koy jottalil euh, ba ni mu fi bàyyi ko ñu koy ñaanalaat yàlla na yàlla dafal ko njéggal dëkkal ko jannatul lii na waaye mu continuer ko ci njaboot gi euh, ci sëriñ Mouhamadou Mouxtada yàlla boole leen waaye yàlla daf ñu déggoo lool Euh, te wax dëgg yàlla mën nañ ne way jur la bàyyi la si Serigne Mouhamadou Mourtada waaye jëlaat lépp nag teg ko ne le doon taalibe euh, te itam ni ko euh, mag ñi waxee rek kër Seexu Ceneba loo fi mën a am lu dul war ma rek war maa ko gën ndax ku fi jàll rek war ma moo la jàllale dama daan gis ki nga xamante ni moo di sunu bàyyi Mor Ñeng imaamu raati bu ba dañu mës a toog foofu ci bunt ci pencum Ceneba bi ci buntu kër bàyyi Baye Ousseynou Khoudia bi jamonoy Baye Cheikh Euh, yàlla daf mu ñëw ñu jox ko sees bi wax wax mu bañ wax wax mu bañ mu Modou Rokhaya ni ko ndigal la ndigal du gaañ kenn toogal ci sees bi mm. moo jóg toog ci sees bi mm. euh, waaye li mu toog toog da ngay gis que ni nekkul à l'aise mm. ndax euh, ku xamoon Baye Mor Niang ak orma bi ñu jekki-jekki rek oto Baye Cheikh ni dareet gaare biñ naan sekk fekk mi ngi xool côté bi mu sigee muy bayi Cheikh mais bi ma ko gisee ni mu raamee ci suuf Euh, li ma si jàngee waat mooy daal ñun bay boo ñu gën a góorgóorlu waat suñu pas-pas daal parce que buñ xoolee mag ñooñu fi ñu toll woon ci xam-xam fi ñu toll woon ci yàlla tarbiya gu ma sëkk ñu am ko am xam-xam ba mu doy sëkk waaye tam dëddu àdduna ba mu jeex tàkk waaye ni ñu mokkee ci kanami kilifa yi bu ko defee rek loolu buñ euh, buñ gisee ñu koy waxaat bëgg ku si nekk gën a jaajuwaat sa bopp gën a xamaat ni loo mën a def lu dul orma am orma ko gën bu ko defee rek euh, li mbokk yi wax naa njaan ju mag ak ju ndaw amul Euh, ju la ci matt bu mën a doon bu nekk dañ koy lukkale mbaa nga faatu euh, kon mam Ahmadou Ndaak Seck ba ci ki gën ki mujj gën a àdduna ñoom ñëpp seexu cene ba lañ yàlla na yàlla gën leen barkeel ndax kiy toog ci seesu sëriñ cene mam Ahmadou Ndaak Seck ëllëg kenn xamu ko yàlla yàlla def ñi fi des ñëpp ku ci nekk jaar ci seesu sëriñ cene ba yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def euh, bu ko defee rek mi ngi noonu Euh, ñu ngi dëgmal gàmmug si Seydina Ousmane moo war a nekk samedi euh, le 9 décembre 2023 Baye euh, Pape Diop kontaan nañ bu baax a baax a baax bala ñuy daaneel suñu kàddu rek dañoo bëggoon jotaa bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko couleur muy Serigne Makhtar mi nga xamante ne rek la Serigne Mor Serigne ci jikko ju rafet ji yaatu baax oyof ndeysaan barka démb rek eh, fële ca Cambérène eh, sëñ Cheikh Tidiane ma ngi ko fay tudd lu bëri waaye itam Serigne Ousmane mi nga xamante ni bii yaakaar naa ni eh, ku nekk man nga ko war nga ko gën a ñaanal yàlla gën a guddal ay fanam ndax yaakaar naa ni ci gàmm ga gis nañ yenn saa yi muy ñu am luñ koy jottali loolu ci micro bi waaye su waxee ba daanee rek nit ñi dañ naa waaye sëñ bi na continuer waay na continuer waay te loolu itam liñ si jàngee rek mooy dañoo miin cene ba képp koo xamante ni bi yaa ngi si jotaay say mag nekk fa doo bëgg di yëkkati sa kàddu waaye li ñu wax naan ndigal la ndigal moom du ku ko am rek dootu la gaañ eh, sëriñ ma dikke waxoon na ko nee na ndigal ku ko am rek jant la looy xëy rek muy eh, jant buy fenk la looy xëy muy gën a leer kon bu ko defee rek jox nañ ko sëñ eh, maxtaar magam jox na ko ndigal ma doon wax rek moo nekkaat noonu rek waaye en tout cas daal ndigal du gaañ kenn sëñ maxtaar jox na ndigal sëñ ibrahima pour mu rootal ay kàddu waaye moom itam nee na dellowaat na ko mag yi bu ko defee rek yaakaar naa ni kenn kuñ ci am ku yëkkati kàddu rek moom eh, day rafet day doy sëkk ndax yàllaa leen boole si jotaay bi wax dëgg yàlla eh, bay Pape Diop la ñu seqaloon a waxtaan waaye ñu fekkee ko yaakaar naa ni day gën a couleur jotaay bi kon bu ko defee rek occasion yombul ndax yéen a ngi ci àll bi yéen a ngi ci liggéey bi yéen a ngi ci daara yi yàlla mënoon a def ñu ñëw fi ba dem duñ leen fi fekk comme que fekk nañ leen fi rek incha allah euh, dont benn kàddu la euh, sëñ Ibrahima nga ko lu mu gàtt gàtt ñu bànneexoo ko boo paree rek sëñ bi ñaan kon ñu jël micro bi rek jébbal ko ki nga xamante ni moo di sëñ Ibrahima. leen seen seen YouTube. Shamsu TV jant bi leeral àdduna. te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran.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 ba aljana di Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana ay waay di ko bégee waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana di ko bégee